tunate tulanya kilima aloga kini kini nyoroma limenga visa pays mandingue l'on est naturellement culturel et culturellement naturel le festival de musique mandingue a vécu à Tambacounda son initiateur Mamadou Diallo alias Shakiman artiste compositeur et membre du groupe African Vibe lève un coin du voile sur les objectifs de cette édition Pourquoi le festival urbain mandingue C'est juste euh, pour essayer de valoriser la musique euh, mandingue, aussi la culture mandingue. Donc, euh, nous faisons un peu de la musique hip-hop, la musique urbaine, donc il y a un peu le reggae, le rap, la R&B et autres. Donc, nous essayons un peu d'inclure la langue mandingue et la culture mandingue dans cette musique pour essayer un peu de la faire, comment dire encore, connaître aux gens. Donc, c'est très important pour nous. Donc, c'est comme dire aux gens, back to the roots, essayer de retourner à la source. Et, chercher à comprendre exactement c'est quoi notre culture. Donc l'objectif c'est ça. Donc on s'est dit pourquoi ne pas organiser un festival euh, dont le but sera exactement de valoriser la culture mandingue. Les contraintes, le, le festival en a connu à ajouter chaque iman. Des difficultés, on en avait énormément, énormément. Donc euh, problème de logistique, euh, problème de partenaires qui pouvaient nous accompagner à travers ces festivals. Donc euh, voilà, donc nous avons pu organiser euh, le festival à travers le moyen du bord. nous avions, nous plus, donc mais malheureusement, le moyen ne suffisait pas. Donc les partenaires avaient un peu fui tout simplement par rapport euh, à cette euh, pandémie exactement qui est venue un peu chambouler notre euh, calendrier. Sud FM informe vite et bien. Autre contrée, autre festival le festival dit des ondes d'intégration qui occupe encore les projecteurs de l'actualité culturelle. Dix éditions sont tenues, hélas. La maladie à coronavirus est invitée au débat. L'année dernière et cette année, ce rendez-vous international n'a pu être respecté. Néanmoins, Bakari Dakité, l'une des pièces maîtresses du comité l'intégration africaine par les peuples, puisque nos pouvoirs publics sont en train d'en faire, de faire l'intégration par les, pour les peuples. C'est aussi de faire la promotion culturelle des terroirs du Bundu, du Gadjaga, du Khasso, du Mandin. Je veux dire les peuples Soninké, Bambara, Peul, Khassaria, Malinké. C'est aussi de mettre au goût du jour toutes les traditions ancestrales qui avait tendance à disparaître par l'influence des cultures venues d'ailleurs, ce qui a permis aussi de montrer à la face du monde la grande diversité culturelle du Sénégal et des pays limitrophes. Professeur Boulaye Bathily Hana Djida Kama Samba Diéné an Khalifa Baye Koye Bakary Demba Saly Diakité Andoura Diallo Nano Wari Sud FM. Terminons par le nouveau single de Diwanji Family, Illicit Boy, il s'appelle, c'est un tube qui fait tituber de plaisir. Son auteur, Dibidalo, alias Gibson, nous a livré la quintessence du message véhiculé. This bëgg a bëri man yi nanguwul xëy di liggéey dëkk illicite wala trouble xool ko fa muy mujjee bi nee dafa bëgg a bëri man yi nanguwul xëy di liggéey dëkk illicite wala trouble xool ko fa muy Illicit Boy, c'est un single qui parle de, l'entrepreneuriat des jeunes et qui retrace aussi une histoire euh, qui s'était passée ici au niveau de Tamba, une de cambriolage euh, pour juste du, du, faire passer le message en disant aux jeunes que c'est pas vraiment en prenant des pirogues euh, euh pour aller vraiment se jeter en mer ou, pour pouvoir réussir parce que, que, que l'on Quand on parle d'entrepreneuriat, on, parle de débuter quelque chose. Il suffit de commencer pour, vraiment que, que, que ça grandisse un jour. C'est tout pour cette page culture essentiellement consacrée à la région Tambacounda. Merci de l'avoir suivi. Boubacar Tamba vous l'a présenté. Excellente suite des programmes sur Sud FM. dal leen ak jàmm ci seen journal cosaan ak aada. vous écoutez Sud FM Sen Radio 98.5. mama. tula ɲakilima aloga kini kini ɲɔgɔn ma ni min ka fisa min ta de dalaloon na fii festival jagleel ko musique mandeng mu xumboon lool Mamadou Diallo alias Chakima di ab artiste compositeur euh, nekk ci groupe bi di African Vibe bokk na ci ña ko doon amal nee lii lañ ci jubluwoon. c'est pour euh, dekkilaat aada ak cosaan à travers musique bi nga xamante ne moom lañ nekk def mooy mooy la musique urbaine donc euh, comme ñun dañuy faral di def. une musique boo xamante ne dafa bëri langue yi nga xamante ne moom lañ dañuy jéem a valoriser exactement cette euh, langue bi nga xamante ne mooy la langue manding et sa culture aussi. festival musique manding jooje amoon na leen ay jafe-jafe yan ci jànkoonteloon Shakiman. bëri woon na trop trop trop parce que vu fond bi nga xamante ne moom la ñu joxoon donc euh, ak situation corona bi nga xamante ne moom moo ñëw imposé wu ci diggante gi donc xaw na chamboulé sunu calendrier yëpp donc partenaires yi nga xam ne ñoom waroon accompagner donc ñoom it euh, voilà mënuñu woon ñëw donc aussi amoon nañ problème de logistique voilà y avait tous ces problèmes qui s'imposaient ba donc avec les moyens du bord la jéem organiser ce festival FM informe vite et bien. beneen festival a ngi noonu ñu koy duppee festival des ondes d'intégration diwaan wu Bakel mu di festival international joo xam ne ay réew yu bare daañ ko teewee amal nañ ci fukki édition mbas mi di coronavirus dugg ci boo tax na daaw ak ren moom euh, amul teewul yi Diakité di kañ ràññee lool ci comité d'organisation bi andi na ci yii leexal. comme gouvernement yi ñu ngi def euh, intégration. pour nit ñi nit ñi mënoo def seen intégration par seen bopp festival aussi dina tax culture bu nekk ci gox yu mel ni Bundu Gadiaga Kilimaxa xeet yooyu daal ñu génne seen cosaan cosaan soninke cosaan pulaar cosaan bambara cosaan xasonke cosaan xasaaniya yëpp ko xam ne daal mu ngi si zone boobu daal dina génne seen cosaan moo tax aada yi nekkoon foofu yu xam ne nit ñi xaw nañ sax réer tax na sax ñu sulli aada yooyu ba nit ñi xam leen wanante aussi que Sénégal aussi culture Sénégal dafa riche ak dëkk yu wër Sénégal yëpp ñoom moom nañu ak àdduna gi yëpp mooy maanaam daal suñu culture dafa riche dafa vraiment loo xam ne mun nañu ko ci àdduna bi festival bi comme ni ngeen ko xamee aussi balaa ñu koy def dinañ def lu tudd semaine culturelle maanaam dana jël semaine boo xam ne day dem ci dëkk yi ku nekk woon lu muy def ci bésu festival bi ñu tànn seen thème bu ñëwee festival bu ñëwee aussi yemul ci Sénégal ak Mali yëpp nit ñi dañ jógee réew yu mel ni ñaari Guinée yi Mali Mali Mauritanie Gambie di teew ci festival bi ñu man ci ñetti fan yi nekk benn nekk bokk ndey ak baay foo reetaan wecconto xalaatoo Professeur Boulaye Bathily Hana Djida Kama Boulaye Samba Diéné Badado An Khalifa Baye Boye Bakary Demba Sali Jakite Andura Jala Nanowari ñu jeexaleeg singal bu bees bi di illicite boy ma waa diwaan ji famille génne Djiby Diallo ñu gën koo xam ci tuuru Jibson nekk njiitu groupe jooje moo ko composé ba tax na mu mañu ci tuuti ci message ba muy joxe. di nanguwul xëy di liggéey dëkke illicite wala trouble xool ko fa muy mujjee boy bi nee na dafa bëgg a bëri man di nanguwul xëy di liggéey wala trouble xool muy mujjee. Illicit Boys nag ñaari pàcc la dajale benn pàcc bi déjà euh, mi ngi doon wax ni carrément ci wàllum liggéeyu ndaw ñi naka la ñuy fexe ba nañu fexe ba dem liggéey euh, ñaareelu pàcc bi benn genre histoire lay retrace itam benn histoire boo xam ne xewoon na fii histoire benn cambriolage mais ay jeunes yu cambriolé woon benn boutique bu bu mag euh, finalement ñenn ñu jot a daw après dem Europe ñee ca des ñu ñu jot leen a jàpp nag pour wax suñuy ndaw ni loolu solution bi waaw solution bi tey jii nii du jël ay gaal di dem di jéem a dem Europe ndax fii ñàkkul dara ñàkkul lu ñu fi def réew mi ñëpp xam nañ ni ñàkkul li ñu fi def. fii la ñu yem ak yéen ci journalu cosaan ak aada Boubacar Tamba doo leen ko dégtal ñu gërëmaat leen ci ànd bi ngeen di def ak Sud FM